ay gi moo ko moome mam jaara ay gi moo ko moome mam jaara kenn duutu moome bul di mer di rumme mami soxna baale ay gi moo ko moome magalel soxna jaara magalel soxna jaara ay moo ko moomee kenn duutu moomee bur mer di rummee maami jaara maam jaara di rummee wàcc bu yegg seen ñëpp daw di ko mam jaara jar na day jigéen di garme poroxaan bu yegg seen mbër di waada mësa jaar ci aada samaam kenn du ko maame magala soxna bali muntaka soxna bali muntaka samaam kenn du ko maame soxna jaara jaara soxna jaara jaara ma soxna jaara jaara ma bu sa baay jaarama jaar jaarama añ nañ te sur nañu baay soxna jaara jaarama jaara jaarama añ nañ te sur nañu baay soxna jaara jaarama jaara jaarama añ nañ te sur nañu baay soxna te ñu taataan bu baax xam ne takkusaan ba tey noo ngi toog di xaar gan gu tedd ñu doon xaar moo yegg si muy soxna su yiw soxna su tedd jigéen ji yàlla baaxal soxna baali muntaka soxna baali seex sooyibu waaye borom fondation bu rëy bi fondation soxna baali muntaka ndeyu daara yi ñoo ñëw waaye ndeyu dongo yi ñoo ñëw kii ñëw mooy ndeyu daara yi kii ñëw mooy ndeyu dongo yi soxna Baali Muntaka soxna Baali sa dikk gii a ah, neex nanu lool waaye sa dikk gii bég nañ ci lool waaye boo toogoon ba fajar danañ la xaar ndax yow mii yaay ndeyu dongo yi yaay ndeyu daara yi yow mii soxna Baali Multaxa yaay jëwrinu maam jaara ca poroxaan loola waral bi jàngkat yi di wax soxna jaara ñu ne yem leen ci soxna jaara rek ndax moom soxna jaara rek koy bégal soxna Baali nga yiw lool waaye soxna Baali nga baax lool waaye nga tedd lool bëgg lu baax te mën lu baax ku ne xam na ne soxna Baali sa jot bariwut ndax ki nga féeteel ak ki nga nekkal di ko liggéeyal mu Cheikh Mouhamadul Mountakha góor yàlla yàlla na fi yàgg lool ca ànd ak wér yow temps boo jox nit rek lu rëy la ci yoonu murit yow mi dikk bokk nga ci sa dikk bi su ko mënoon a def direct ci télé yépp da koy def su ko mënoon àddina sépp di yëg ni soxna Bale ngi waxtu wii ci tànt bi da koy def ndax lii nag dafa rëy ci moom mel na ni Cheikh Mouhamadul Mountakha moo toog ndax yow foo toog sëriñ bi yëg na ni waxtoo yaa fa toog fooy dem yëg na ni yaa fa dem yàlla yàlla guddal soo fan sa doom jii toog nag doy na sëkk sëriñ maam Cheikh mii waxtu wu ne day wax naan ba sëriñ xaadima ba waajuróom a ñëwee daara yi sëriñ soxay bu daan fi doon doon jël kaset jóge Europe di filmer daara ja ak donga ya loolu nag ñoom bañ fa nekkee xamoon nañ ni sa waajuru baax wa borom liggéey bu barkeel ba ka am ngërëmal doomi sëriñ Tuubaa yépp waaye ka am ngërëmal ñaari doom sëriñ Tuubaa yi jaar nag muy soxna màgget Gueye yàlla yàlla yokk yërmande kenn ak Cheikh Ibra Fall la bokk ndey ku bëgg Cheikh Ibra bëgg Cheikh Issa ku bëgg Cheikh Issa foofu laa ko yemal sëñ Bass maa ngi ñaan daal quatre-vingt-neuf juróom-ñeent fukki at ak juróom-ñeent yàlla na ko dund euh, damay dama lay wax tuuti nag li may wax nii du jaaxaate damay wér di la yàlla nga gudd fan de ndax lii nga defoon sëñ Tuubaa yaa ko njëkk a def ci yoonu murit mbir rek bu dee mbir mu rëy sa baax nga ànd kook say doom yi baay di ko def te keneen mën a ko ñi koy béree dana war a ñaan te koy def mu gudd fan léegi sëñ Basa ñu wax ñëpp ñëw soxna Bali mu wax nga ni nag sëñ soxna Bali ñëw barke alxuraan léegi laa jóge Tuubaa waxtu ak fukki laa ko atom bees laa yor te yaa xoolal maa ko ni woo eh. moo gën a na ragal yàlla ci réew mi moo ci gën a na làqu moo ci dàq na alxuraan moo ko ci dàq na jàngale moo dàq yàlla yëpp koo gis mu fees Tuuba te bajantuwul mokkal alxuraan tari ko bind ko sotti ko sant ko matt ko maas ko sëñ Suhaybu boo bu ma wër alxuraan dugg Tuuba kër sëñ Suhaybu laa jëm bu ma wër ay rakka dugg Tuuba kër sëñ Abdul Xaadir laa jëm jàmbaar joo xam ne lu mu dóor mu daanu sëñ Abdul Xaadir borom xaal boo xam ni lu mu wax yàlla def ko sëñ Baara loo fayee yàlla wuy sëriñ sëñ Fallu xam-xam sëñ Basiiru xel mu rëy ba mel ni wàllu yiw te du laal wàllu yoon sëñ Moodu kii sëñ sooy bu mel ni ko sëñ mu sëñ mu ko sëñ Bas di doomam kii li may wax li may wax nii daa leer de sëñ sooy boo ko meññi sëñ Muntaxa ko làq sëñ Basiru lay doomam bu taxoon fii ni sama dooma def lii malien yi sax bu ñëwee nañ ni kuy sa doom yaa bàyyi ma bokk benn bàyyi ak kii ak ñii kon boo ñëwee man Tuubaa jóge suba laa nare di ñëw sëñ Basa ma woo ni ma soxna bàyyi day ñëw fekk ñaanal na ma oto yàlla jox ma oto bu bees càq bari na ñoo xam ne dangay ngay gis ñuy dox ñu man seen bopp gannaaw yàlla moom mi moo tax mooy ndey sëti sëriñ Tuubaa yi moo leen di guddil di leen bëccëgal te yàlla rek tax bari na ñooy gis ñu leen di ràññee di leen xàmmee ci nit ñi gannaaw yàlla soxna su tedd si ya kon nag ñu ngi koy ñaanal bu baax nee na fu beeg nañ ci teewaay bi sëñ Mamoun duñu ñu guddal dañuy wax rek ni lii sëñ ji li wax dañ koy gën dëng bàjjen maa ngi lay ziar ñu bëgg sëriñ bi waxee démb ba tey amatuma jot loolu rek gis sa jëmm ju baax ji de xoolal lii rek te it eh, dafa am aw nit boo leen gisee da bëgg yàlla ko su leen gisee da kontaan li ne ci yow yàllaa ko def kenn mënu ci dara te it noonu mu ne ci man ñii gars yi di wax rek noonu lay nekk ci ñu bëree bëri am na ko ma sëñ am na ko ko wax nit ñi kenn moomu lay sëriñ Babacar si bu baax ma daan waxe ku amul parfum dendal ak Cheikh Bass ñu ngi koy xëy mu yóbbaale lislaam benn buum la sama baay yàlla yàlla yokk leeram juruma man kese ña fa gën a ndaw ca laa bokk waaye xam naa ku ma soppoon la parce que daf ma daan tooñ ci ay xasida su ma sànn tëju ci këram kenn mënu ko génne man su ma ñëwee damay toog fa su ma toogee xam naa li may wax ba mu lan laa daan wax كلام قديم لا يمال سماؤه هذا كان قول وفعل ونية yàlla xam ne lii rek laa daan wax sama papa ju baax ja tij kon Mbàkke li ñu defal tey occasion bi ñu may ñu gis suñu bàjjen bu baax bi taman su ma koy wax bàjjen sama xol bi day nux nux màggal ñëw naa këram gaa yi xàmme woon ma ba ma xam rek ma génnaan ma ñibbiwaat ndànk dem ñëw kër sëñ bi màggal damay xuus defe naa sa kër laa laa jëkke kon man day bëgg naa te xam naa li ma bëggloo moo leen bëggloo yéen ñëpp maa ngi ñaan rek ngeen jéggalaat lii ma yàlla bindee noonu laa mel lii laa daan wax ba kër Serigne Touba gi nekk Chicago ma jëkk fa màggal bi ñu ko jëndee man la yàlla dogal ma def fa màggal gu mag 2018 te lii ma fay wax laay wax du caagi ni nit becc wala nit ki sama yëg-yëg ak sama cofeel ci li ma koy wax ci Xaadimul Moustapha loolu kese bëgg Serigne Touba ba gëmewuma ko defe naa Baye Fall si xam nga li wax sëñ Matar xam maa ngi jéggalu sax bu baax a baax mais l'islam bi fi nar a dajee samedi li fi xew sànq rek victoire l'islam sama waa ji kon maa ngi jégaluwaat ci wax ju bëri ñu baal ma. wal kawfu ma darabat unsan wala sakaran ma xadiman aba min xaybin المصطفى والكف ما دربت أنسا ولا ذكرا ما خادما أبى من خيب ولم ينم شيء وصف سيدنا محمد المتاع والكف ما من أنسا ولا زال xool Dakar xool fu war xool borom Dakar xool Ceerno Seyda dellu xool Seyda ja borom Yàlla يا كريم يا عزيز يلا daan def de tey te doo ko defal defal defal ñaari mbay doon ku tubaale xam ne danga ko daan def mu neex defal rek defal defal defal أقبل لعبد المريد صادق لهم بخدمة أبي وإن أوديا قلبك في أموات يلا قلبك على سادة أموات رب الأراضي عليهم كسماوات قصيدة يا sëriñ bi soxna soxna baali dafa wax ni maanaam bu ñëwoon toog taxaw ci buntu baas bi nga xool ko mu xool la rek day doy sëkk ndax tubaab dane yaa des images qui parlent ndax teewaayam fii xam na ni teewaayu ku ne am na waaye xam na moom yëgal na boppam ni bosam bokk na ci yi la gënal mbàkke nga bëgg ko lool te bëgg gi nga ko bëgg daa àgg ci kii kilifaam tey yaakaaram te te yilif leen yen ñëpp muy Cheikh mun Cheikh Mamadou Muntaxa noonu la ko xamee nga ëmbal ko yërmande ëmbal ko cofeel li tubaab naan amour maternel loolu moo dox sa digganteeg soxna Bali sa yërmande ci soxna Bali àgg na ñi ko jege da nga leen di woo sax naan leen ba xam lekk na te ngeen ko forcé ay garab yi nelaw mu nelaw jën dafa sonn ñee leen nit ñi nañ ko may mu noppalu loolu ak cofeel dëgg ak jël nit ki def ko muy sa jur mooy tax lu mel noonu am te yow képp ku la xam xam na naga bëgg soxna Bali ku xam xam na ni téye nga soxna Bali képp ku bëgg soxna Bali bu la gisee di wax lu baax da da koy yokk ngir xam ni loolu da da nga ko ca teral yooyu wii man daak di way léegi ñun ñëpp moom moom la suñu téléphone yi sonné te bañ demee Tiwaawan yaa ko ne wayal ko soxna jaara kon yow sa cofeel ci moom ak sa bëgg ci moom lu àdduna bépp xam ko soxna si nee na lépp lu mu ne saabu bu gersoo yow lay njëkk a gis gi lii lii bàyyi faali naan bu doon badar dañuy jeex waaye yow bu soxna baali woote woon xare sëñ Basiru xaari boobu mooy général bi mag yi mooy taxaw ca kanam waaye baat bi sëñ si la wax na daa firi lépp bu taxawee fii xool fii ni mu mel taxaw ni sama sama dooma def lii soxna baali nee na loolu moom doy na ko sëkk nee na mbàkke doom ju ñuy tiitaroo nga doom ju ñuy safoo nga doom ju ñuy ndamoo nga nee na doom ju am jom nga doom ju xam sa bopp nga waaye nee na nag sëñ taxaa mi fii sëñ Tubaa nag dalaa seereel sak pëstéef seeral la sak jàmbaar ba tuddee la jàmbaari sëñ Tubaa loolu yi nag soxna si nee na kon moom leneen lu mu ca def rek day da koy sof waaye nag tubaab danaan engagement singulier dafa am kon moom day jël yeneen yoo xam ne moom c'est des relations particulières c'est des choses singulières yoo xam ni sa diggante la ak moom nga jàpp ko lool téye ko lool téewug biir nee na kon bis bi Mbàkke bu sañoon kuy ñëw fi la koy fekk kuy dem fi la koy bàyyi bu nu jàppee bis bi ne ne mois de novembre nee na bu desoon ci moom rek mois de mai lay tàmbali saaboo xëyee gis ko saaboo xëyee jàkkaarlook moom nee na nag mi ngi seereel ñëpp ni Serigne Bassirou Khadim aw bii awa ba mii nee na ni perkaal mel soxna Baal nee na noonu la xolam bi mel nee na mi ngi koy seereel ñëpp nee na borom xol bu laab la nee na borom xol bu sell la nee na nit ku tedd la te nee na nit ku yiw la nee na waaye sëñ ba saari moo ba ku mën nitam la soxna Baali nee na yow da mën sa nit képp kuy sa nit dañuy xam ni kii sa nit la te lépp lu xew ci sa nit yow dangay taxaw kon soxna si nee na sant na la bu baax gërëm na la bu baax li nga xam ni daal yéene na la ko te nee na leer na ko ni mënalu ko boppam waaye sëñ tubaa sama maam mën na ko nee na mi ngi koy ñaan sëñ tubaa yàlla na la ko defal yàlla na la yàlla yokk yal na la yàlla sàmm yàlla la yàlla aar yàlla dolli sa gudd fan yàlla dolli sa wér mu ne ndax as gor nga ab jullit nga te ab murit nga lii nga xam nag moom ngay def di ko defal baayam bii nee na mel na ni sëñ sooy bi nga ko defal sëñ Abdou Lahad nga ko defal sëriñ Saaliw nga ko defal sëriñ Fallu nga ko defal ndax doomi sëñ tubaa moom koo ci jël rek muy doomi sëñ tubaa man dama naan daraja ji gën a rëy ci àdduna neel doomi sëñ tubaa bu la nee jan daraja la am nga ne doon doomi sëñ tubaa ndax am na mag mu ma ku dul sëñ tubaa rek am nga doom joo xam ne boo soñoon yow doo doon baayam moom rek la yàlla defal loolu Cheikh sa Moustapha ba ci Cheikh Moutala ñëpp jub fukki doom ak ñaar amul kenn kuñ naan bu dul woon nàngam wala nangam wala kii sikk sàngam ñëpp mel nii loolu sëriñ bi rek moom rek la ko yàlla defal te kenn fekk su ko kenn dabu ko ci moo tax dane woon Cerno mu ne ko Mbàkke mu ne ko maa nekk fépp ne ci ñëpp te kenn nekkul ci man nu fi waay mel maa tax te kenn taxul ma mel ni ma mel te ñi ma topp ñëpp bu doon liñ ma topp ñoom ñëpp sawara lañ kooku mooy sunu sëriñ soxna si nee na sëriñ boobu la lay bàyyee li mu yéene ci ak li ci bëgg sëriñ boobu moo ko man te yàlla na la ko defal soxna baali ma lay seereel ni sëriñ jiili mii xam naa ni sax moom loolu fàtte na ko keroog bi sëñ galas mu sëriñ Modou Bousso Dieng nga wàccee liggéey danoo toog di waxtaan nga ni ma sëñ Muntaxa mii àddina ji nga ne ma mane ne la waaw nga ne ma bam ba ba mu ciy pare doonagul sëñ Tuubaa yaa ma ko wax nga ne ma nag li ko fii tax a yàgg loolu du ci moom ci ci ñun la ma ne la nu mu nekkee ci ñun nga ne ma bu nu fexee ba lépp lu mu bëgg nu koy def saa bu nu xëyee dana nu jàkkaarloog moom loolu nag ab ab soñña la yaa ma ko wax de nga ne ma nga ne ma ak yàggam mi ngi ci nun ndax moom àdduna laata muy doon sëñ Tuubaa ci noppi waaye bu nu fexee ba lim ñuy digal ak lim bëgg ci ñun ñu di ko def saa bu nu xëyee di ko gis loolu nag ab soñña la ba képp kuy murit te yaakaar sëñ Tuubaa nga déggee ko noonu. li ñu am lu mel nii njariñ moo tax ñu am ko mu ne képp ku fekk koo xam ne dafa am ay jafe-jafe am bor wala bëgg dafa dépense. man yassara ala mu'sirin yassara allahu alayhi yàlla su ma ko yow fi dunya wal axira waaye bi caag yëmut foofu xadis daa waxaat sax foofu nag wala mbir mi nekk ndax taxawaay boobu la moom laa gis Cheikh Mahamadou Bachir wallahu fi awni al abdi maa daama al abdu fi awni axihi gis nga ñu bari sax des fois dañuy jox jox jox waaye man li ma gis Cheikh Mahamadou Bachir bu koy taxaw man moom lay seere mooy nit ku am jafe-jafe lay bañ a gis jafe-jafe adduna moo xam looy lijjanti wala lu jafe la wala nga nekk koo xam ne dañ laa bëgg doole wala nga kooku koo xam ne da am ay jafe ci wàllu yoon wala lu mënti doon loolu mooy awnu boobu mooy ndimbal googu lay taxawee gis nga yéen wax naan dafa dafa leble maanaam boo daa lebal nit ñi ñu bari dañuy jàpp ne mooy yëkkati alal di ko joxe waaye am na ñoo xam ne leen lebal moo ëpp alal jañ am alal jañ am dimbal gum leen dimbal ak taxaw gum leen taxaw ci lañ jaare am ay milliards ndax dama xam ñi ñi ko jege ak ñi nga xam ne ñoom lay nekkal te ñoo ñuy ay boromi alal du yëkkati xaalis de mais da leen taxaw assisté leen taxaw gaay koo xam ne bu ñu dugguloo loxoom suux mën naa am mu taxaw leen fu mel noonu moo tax kooku nag yàlla nee na man yàlla du ma dëñ mukk Mouhamed Sida ndeysaan mi ngi seet rek moom ku baax la loolu mooy ndimbali ñu bari bu ñëwee naan leble daa leble daa jóg de foofu la taxawee doo man mbindeef yi ñiin gis ñëpp ngeen leen dégg ay morom ak alal ak ñaañ ak ñëpp foofu la leen taxawee sook la boo xam daa taxaw seen digganteeg lañ doon wut nee na ñun ñoo am occasion ngir li li liñ koy defal. ne feeñ. waaye moom lim ñuy defal. waaye moom lim ñuy defal. amul sens a feeñ. nee na amul sens loolu man a feeñ. ndax ci biir biir bureau ndax loolu ci biir bureau la. ak ci biir saalam. ak ci biir saalam. mën naa wax naa wax ni. su na su fekkoonte ni. lim ma defal ren. lim ma defal ren. waxuma at yi weesu. nee na waxuma at yi weesu. lim ma dekanteel ci man. nee na lim ma dekanteel ci man. nee na bu ko laajoon commission 5 pour cent. nee na bu pour cent. nee na ameel na la 500 millions. nee na te mosu koo jox benn dërëm. nee na man nag. wallaahi wal quraanu asim. nee ak loo ma jege jege lu ma la bëgg bëgg bëgg. nee lu mbooloo mi bari bari. rus naa waxal nit lu dul dëgg. nee na dara jëralu ma ko. damay dund. damay lekk. damay naan. di faj samay soxla. nee dawal oto am kër gu ma dëkke nee na te yàlla samay at bariwul nee na kon tey li ma yàlla war a fayee nee na li ma war a fayee yàlla mooy nee na tegu ci njub nee ak di wax dëgg damay wax ni soxna Bali nee na man Mouhamed Sylla xam gi ma ko xam ak sekk gi ma sekk ak moom nee na bu du woon doomi Sëriñ Souhaïbou nee nee na cofeel gi ma am ci moom dara du ci wàññeeku nee na léeg-léeg nag damay am naqar ci jataay nee na ndax dañuy fàtte ni ñun ay murit lañ kii doomi seen son yi bu la nee na lu wax ji bëri bëri bëri kenn mënta tagg soxna Baali nee na ba weesule ko jàmbaari sëñ Muntaxa doomi sëriñ son yi bu nee na leneen na lu luñ ko waxal nee na lii ko gën a diis nee moo tax nañuy bàyyi xel ne fii nu bokk nun ak ñun ñooy kan lu mu mën a doon rek nañuy fàttaliku ni cërub euh, euh, sëriñ Tuubaa bi lu ci nit am euh, ba mu rëy xamal ni yow tuuti nga ci lay seereel ni ni nga mel ci man li ngay dox ak man nee na xam nga ko bu baax noonu la sëñ Maxtaar mi mel ak man nee na su ma ko woon léegi ne ko bërëb sàngam dama faa am nangam te diw dégg naa jenn sa xarit la danaan la waxtu sàngam ñëwal jël si ma man képp man képp Sénégal laa ma sa gis dugal ko ci bureau yu bari nee na ngir sama soxla nee te wallaahi kenn du ko déggaat nee na te asgor nag nee na joxe xaalis du fay. nee na reconnaissance mooy fay. Serigne Bassirou Serigne sooy bu mu baax mi waajuru soxna Baali mi toog daf ni baax du maye yëre du maye oto du maye xaalis ñu ne ko mbàkke baax la na mu ni baax kóllëre la soo amee kóllëre baax nga boo ko ñàkkee safaan ba nga booy wër gore di da ngay dem kër fàtte kuy fàtte gore woo waxtu wi ñu toll ak fii ñu nekk nga fàttaliku sama waajur alaaj jaaja mbay wax fi mu daan taxaw 2004 maa ngi daan ànd xale bu tuut laa woon wax nga dëkk première édition huit ministres de la république Macky mii tey ministre de l' intérieur loolu mu ngi fi woon ak Djibo Leyti Ka jamonoy Ablaye Wade seize olof ni lu yàgg dëgg la amul fit munu ko ku gorewul munu ko ku yàkkamti munu ko kuy profité munu ko bis bi li ñu ciy def mbàkke amoo ko ci bu doon da am loo ci wut di nga def invitation boole kooku soutien boole kook parrainage saa boo xëyee télé bi bu sak abaak ñëpp di publicité di wax ñu ko tuddee amul ci sëriñ bi nga tàmbalee ci sëriñ bi nga yem def ci sa poste ba mu jeex def ci sa doole ba mu jeex def ci say nelaw ba mu jeex wëlbatiku di jàpp ay seize ak i place naan tegal ma fii sa maam Serigne Baara nga koy defal waaye nag da xam ni danga yor sa paanum ndox di ko sotti ci géej fas yéene séddoog borom ndax sëriñ Baara toll noonu ci Serigne Touba Seydou da nga ni soxna Baali kenn du yow kenn du moom dinaa wax juróom ci yu ma ci xam yoo xamante ni si faat na keneen dootu ko am te am na ko te keneen dootu am moo tax du kenn mooy doomi Serigne Sooyu mu bàyyi la ko Serigne Saliou jox ko soxna may mu yar ko muy ñetti Serigne Touba ci moom wëlbatiku ñu jox ko Serigne Serigne Mountakha mu nekk fa ak ngor ak jom ba Serigne Touba fekkat ko fa muy ñeenti Serigne Touba ci yow juróomeel bi mooy nga doon doon soxna jaara Bousso amula yow dong waaye bu ne soxna baara soxna jaara ñëpp ñu soxna baali bu ne Porokhane ñëpp ñu soxna baali kii mooy gay lekk Serigne Baara waaye yaay gay lekk soxna soxna jaara beneen nag bi ci dolleeku mooy xare dafa xew yi xeex xew yi nanguy dëkk ak dàqante xew yi baatin kenn waneetu ko ñett xew wax lu baax dox lu baax jëf lu baax yéen ñaar ñi kenn mënu leen ci bëgg nag nekkul ci xef nekkul ci péru bët ku Serigne Touba tax nga bëgg ko da koy bëgg ndax Serigne Touba saa boo ko gisee siyaar ko boo ko gisul di ko ñaanal suñu borom soxna Bally sagub yoon bi nga mi ngi nuyu mbooloo mi di jiital ci nuyoo bi bàjjanam xaritam wóllëreem soxna si sa doom Serigne Bassirou nee na moo ngi lay ñaan bala tàmbali kaa doom mu nuyu sëriñ Abdou Khadir mbakke mi ziyaare ko di nuyu sëriñ Ibou Seyni Laay di nuyu sëriñ Modou Boussa Dendey sëriñ Abdou Khoudoos mu sëñ Cheikhouna Abdou Lahat di nuyu sëriñ Cheikh sëriñ maam Cheikh Mbacke AES sëriñ Cheikh Abdou moom sëriñ Modou Boussa Dieng imam Sall Modou Mamou Ñang sëriñ Silla Baye Fall Modou Habib xaadim amar sëriñ basiru mun sëriñ moodu maxtaar sëriñ basiru moom seriñ moodu maxtaar ak sëriñ Mbacke di doomam ak sëriñ Mamor Dende sëriñ Abo. waaye di beral nuyoo ak ziar. waaye di beral nuyoo ak ziar. course sociale. course sociale. Serigne Makhtar Diène. Serigne Makhtar bi mu ñëwee. bi mu ñëwee. ma wax ko ni ko yaa ngi ñëw. mu wax ko ni ko soxna saa ngi ñëw. am na kilifa ku ko doon seet ñëw na ba ci buntu foire bi. am na kilifa ku ko ñëw na ba ci buntu foire bi. ñu waroon a ànd am fu nu dem. ñu waroon a ànd am fu nu dem. xam naa dafa am code yu mu ko waroon a jox. xam na ni Serigne Matar dafa am code yu mu ko waroon a jox. waaye bi ma nekk soxna saa ngi ñëw. waaye bi mu ko nee soxna saa ngi ñëw. dane ma duma dem dama koy xaar. dane ko duma dem dama koy xaar. loolu lépp day wane sa cofeel ci moom. loolu lépp day wane cofeelam ci soxna si. bëgg gi mu ko bëgg. bëgg ko bëgg. ak fonk gi mu ko fonk. ak fonk gi mu ko fonk. nga nekk nit ku baax. Hmm? ma taar Serigne bi nee nga nekk nit ku baax. situation. nee na situation. du la perturbé. du la perturbé. wala émotion. wala émotion. jàpp la. jàpp la ba nga génn gaam. ba nga génn gaam. nga nekk nit ku baax. nee na nga nekk nit ku baax. ku bëgg lu baax. ku kon mi lay ziyaare bu baax. Mouhamed. Mouhamed si la. yow yaa baax. sëriñ bi nee na yow yaa baax. li nga fi wax. li nga fi wax. ku baaxul. ku baaxul. xolam setul. xolam setul. laabul. laabul bëggul lu baax. bëggul lu baax. mënu koo ko mënu koo wax. sa teraanga. sa teraanga. ci njabootu Serigne Touba. ci njabootu Serigne Touba. ñi ko mën a waat bariwul. ñi ko mën a waat bariwul. xanaa ku la xam. xanaa ku la xamul. waaye koo ma sa nuyool. waaye koo ma sa nuyool. jox ko loxo. jox ko loxo. xam na sa teraanga. te loolu jëmmi Serigne Touba rek a tax. te loolu jëmmi Serigne Touba rek a tax. xoolal fi nga toog. nee na xoolal fi nga toog. li la yàlla dénk. li la yàlla dénk. am na ñoo xam ne. am na ñoo xam ne. bu tegewoon seen loxo. bu tege seen loxo. dañuy bangi bangi. dañuy bangi bangi. foofu kilifa yi def leen morom. foofu kilifa yi def leen moroom bu nu waxee benn. bu nu waxee benn. ñu ni ñaar. ñu ni ñaar. ak seeni tànk. ak seen i lu waay wax. lu waay wax ñu dugg ci. boo nee soxna si mooy sa ndey. boo nee soxna si mooy sa ndey. gëm naa ko. nee na moom gëm na ko. kum doon sa ndey. ndax kum doon sa ndey. nga koy dund. nga koy dund. nii rek nii rek nga mën a mel. yar ak teggin. yar ak teggin. Bass maa ngi sàkku sa doom ji. kon soxna si Serigne Bassirou nee na ngi sàkku nga ñaanal sa doom ji di Mouhamed Sylla. yàlla defal ko jàmm. yàlla defal ko jàmm. dolli ay xéewalam di nuyu ñi nga àndal. di nuyu ñi nga àndal. ma fabee nuyoo teg ko ci loxo soxna Fatou Géwal. nee na bu jëlee nuyoo bi teg ko ci loxo soxna Fatou Géwal Diouf. muy ku yàlla baaxal. muy nit ku yàlla baaxal. lépp lu ma xewle. lépp lu mu xewle. teraangaam dina fi ñëw. teraangaam dina fi ñëw. te man mosuma ko defal teraanga. te Serigne Bassirou na moom mun musta defal Fatou Géwal teraanga te loolu lépp jëmmi soxna Baali rek a tax mu koy def kon Mbàkke Bàll bu fabee nuyoo bu fabee nuyoo teg ko ci loxol Mamour teg ko ci loxol Serigne Mamour loo mu jàllaleel ma ko ci njaboot gi mu jàllaleel ko ci njaboot gi yépp Mbàkke man awma sa fay Mbàkke Serigne Basiru nee na amul sa fay xam naa fi nga jógee xam na fi nga jógee xam naa li nga bàyyi ci gannaaw xam naa li nga bàyyi ci ginnaaw waxtu wii nga jóg nee na waxtu wii nga jóg ku la saful ku la saful ñorul la ñoru la faale woo ko faale woo ko bàyyi woo ko xel bàyyi woo ko xel doo ko jógal waxtu doo ko jógal ndax xam naa ne am nga ngànt ndax xam na ni am nga ngànt waaye yow da ngaa mën waaye nee na yow Mbàkke da ngaa mën sa te jamono bi nag te jamono bi nag ku sàggan ku sàggan ban ni la mënoo sa ban ni la mënoo sa nit ñàkk nga lu bari ñàkk nga lu baree bari ndax ku bëgg lu baax ndax ku bëgg lu baax. te jëm fenn. te jëm fenn. bu xamee ni mënoo sa nit. bu bu xamee ni mënoo sa nit. lu mu lay doyee. lu lay doyee. mbàkke yow sa doom ji nee na dangaa mën sa nit. xam teraanga. xam teraanga. bëgg lu baax. bëgg lu baax. mën a sonn ci nit. mën a sonn ci nit. yéene ñëpp jàmm. yéene ñëpp jàmm. sa mbokk yi nga bokkal sëriñ Touba. nee na sa mbokk yi nga bokkal Serigne Touba. ñuy say càmmiñ. ñuy say càmmiñ. ñii di say mag. ñii di say mag. ñii di say rakk. ñii di say rakk. góor ak jigéen góor ak jigéen. yéene ji nga am ci ñoom. yéene ji nga am ci ñoom. yiw wi nga leen ëmbal. yiw wi nga leen ëmbal. jéggi na dayoo. Serigne Modou Moustapha sa waajur wa nag. Serigne Modou Moustapha sa waajur wa nag. daan na wax ni. daan na wax ni. yéeneel ñëpp jàmm. yéeneel ñëpp jàmm. du tax ñëpp am jàmm. du ñëpp am jàmm. waaye yow mi ko yéene. waaye yow mi ko yéene. ñëpp ñëpp. yàlla dina la defal yàlla dina la defal jàmm. yow jàmm nee na yow Mbàkke jàmm rek ngay am. te fi yàgg. maa ما ينفع الناس ndax واما ما ينفع الناس فيمكث فينكث في الارض في الارض ku amal nit ñi njariñ ku amal nit ñi njariñ danga fi yàgg danga fi yàgg amal nga nit ñi njariñ te nee na yow Mbàkke amal nga nit ñi njariñ taxawaay bi nga am nee na taxawaay bi nga am ci Sëriñ Muntaxa ci Sëriñ Muntaxa defoo ko càmmiñ defoo ko càmmiñ defoo ko sëriñ defoo ko sëriñ danga koo def wasiila danga koo def wasiila mu jëwriñ mu doon sa jëwriñ nga koy liggéeyal nga koy liggéeyal ci lu nëbbu ci lu nëbbu ak lu feeñ ak bi dama faa dem ànd ak Mamour mii nee na dafa dem ci sëriñ Mountakha ànd ak sëriñ Mamour Lo mii waxtaan ak moom ba pare waxtaan ak sëriñ bi ba noppi ni ko soxna si nanga ko ñaanal mu gudd fan ni ko soxna Baali na nga ko ñaanal mu gudd fan mu ne ma sàllaaw ndax jàmbaar mu ne ko sëriñ Mountakha ni ko sàllaaw ndax jàmbaar la sama ci samay ndigal ni ko ci samay ndigal. ci lay nekk guddi. ci lay nekk guddi. ci lay nekk bëccëg. ci lay nekk bëccëg. lu mu xam ni sama bëgg la. lu mu xam ni sama bëggug sëriñ mu Mountakha la. du xaar mu wax ko. sëriñ bi nee na du xaar mu wax ko. loolu nag Mbàkke. nee na loolu nag Mbàkke. moo taxoon sëriñ Sooy bu jël la jox la ko. jamono ba nga fay nekk. nee na jamono ba nga fay nekk. sunuy nopp. ci ci sunuy nopp. booba jamono melul nii. nee na booba jamono melul nii. nga toog nga toog muñ. liggéeyal ko tarbiyo ko tarbiyo ba lépp ñëw nit nit fu mu nekk fu mu nekk te nangu faa muñ te nangu faa muñ nangu faa sonn nangu faa sonn nangu faa xaar dara nangu faa xaar dara dara du ko fekk dara du ko fa fekk waaye bi lépp ñëwee ci sa loxo waaye bi lépp ñëwee ci sa loxo soppeekoo soppeekoo changé woo changé woo soppi woo jikko ay xarit soppi ay xarit soppiwoo ay àndandoo soppiwoo ay doom soppiwoo ay doom ndax am na ñoo xam ni ndax am na ñoo xam ni bu leen teraanga dabee bu leen teraanga dabee wala xéewal wala xéewal ñu soppi doom ñu soppi doom soppi taalibe soppi taalibe soppi xarit soppi xarit soppi ay àndandoo sa doom ji nee na Mbàkke loolu dalul say mbokk say mbokk xeeboo leen xeeboo leen boo dajanteeg ñoom nee na boo dajanteeg say mbokk da ngay wàcce sa bopp. da ngay sa bopp. ba gën leen a suufee ba gën a suufee. ndax bëggoo. ndax bëggoo. ñuy xëy na ñuy am benn arrière pensée. ndax bëggoo ñuy am benn arrière pensée. ci yow ci yow. ni la yàlla def ni la yàlla def. yàlla def nag. yàlla def nag. yàlla la soob. yàlla la soob. mu def la ko mu def tàgguwul ma sàmba. tàgguwul ma sàmba. tàgguwul ma demba. yàlla mi nga xam ni. yàlla mi nga xam ni. moo wax ni. moo wax ni. war a faax naa baax du foo ko baax ni darajaati maay fab ñii. maay fab ñii. yëkkati leen. yëkkati leen. jox leen adduna. jox leen adduna. jox leen tawxiid. jox leen tawxiid. jox leen ngëm yàlla. jox leen ngëm yàlla. jox leen dëggal. jox leen dëggal. jox leen tegu ci siraatal mustaqim. jox leen tegu ci siraatal mustaqim. yàlla moom moo la ko defal yàlla moomu moo la ko defal Mbàkke. kon Mbàkke yàlla na yàlla guddal saw fan. yàlla na yàlla defal jàmm. yàlla na yàlla defal la jàmm. yàlla na yàlla gën a wéral. yàlla na la yàlla gën a wéral. yàlla taxaw. yàlla na la yàlla taxaw. say doom lañ. nee na moom sa doom la. say taalibe lañ. nee na sa taalibe la. say soppe lañ. sa soppe la. loo bëgg. loo bëgg. loolu lañ bëgg. loolu la bëgg. loo xool. loo xool. moom lañ xool. nee na moom lay xool. loo bëggul. nee na loo bëggul. bëgguñu ko. nee na bëggu ko. danañ ko sori. dana ko sori. di ko daw. di ko daw. ni ñuy dawee. ni ñuy dawee. loo ragal. loo ragal. jërëjëf Mbacke Mbacke. suñu xol sedd. nee na xolam sedd na kuy. sànni nee na loolu rek mooy lim ci doon sànni xol moo fees nee na xolam moo fees nee na xam na ni bu continuer du baax yàlla na la yàlla defal jàmm nee na bég na lool sant na la lool gërëm na la lool ci turu Serigne Djili ci turu Serigne Maam Cheikh Mbacke comité de pilotage journée culturelle Serigne Bara ci turu comité de yi fi ci turu communicateur traditionnel yi turu ñu yor téléphone yi filmé ci turu ñu yor téléphone yi sinap muy sinapeur yi ak mbooleem ñi fi daje ñëpp ak mbooleem ñi fi loolu rek moo doon kàddu nee na loolu rek moo doon kàddu yi nga ñaanal ko nga ñaanal ko ñu yeewi la ñu yeewi la nga delluwaat ci yitte yi nee na xolam sedd na guy yàlla na yàlla defal la jàmm yàlla na la yàlla sàmm jërëjëf Mbacke